asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi nga xam ne yéen seetaan site internet bii di Touba Argentine TV ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd gu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi ni ñu leen ko diggee woon jamono ji tembe la ñuy dugg ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Daaru Jóob di dëkk boo xam ne dafa bokk ci dëkki Serigne Massamba Diop Sam waaye mu dëloon fi ñi nga xam ne ñoo di ak njabootam Daaru Jóob nag nekk digg dëkk boo xam ne mu ngi nekk ci diggante daaru marnaanuk Baye Cheikh baal la ak dëkk maam Thierno Birahim di daarul Moxti yi diggam ak daarul Moxti yi toll ci juróom-benn kilomètre diggante Touba ak daarul Moxti yi toll ci li nga xam ne moom moo di vingt-huit kilomètres kon boo ko boolee dina la jox trente-quatre kilomètres yoo xam ne moo dox ci diggante dëkk bu sell bii di Touba ak dëkk bi nga xam ne mooy daaru Diop. daaru Diop nag am bis bu am solo boo xam ne moom moo fi am. Euh, chaque année wax dëgg yàlla bañ ko door ak léegi yàgg na daayira bi nga xam ne moom moo fi nekk ñu tuddee ko euh, sant ma Massamba Diop Sam chaque année ñu di ko amal ci jëwrin ji seexle lay ñu ngi koy ziare bu baax a baax kilifa yi incha allah fenn fu waaye nekk dinañ dem ci yow ziar la wan leen lenn ci njabootu ma Massamba Diop Sam gi nga xam ne actuellement ñi ngi ci dëkk bii télévision Touba Argentine TV présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arona Cissé ngeen jàkkaarloog man nii di ma xool ma leen di xool. Euh, ñu ànd ak ki nga xam ne mooy Seyda Astou Niass Bintul Asad euh, an ñëwal fii jàkkaarloog image bi sama man euh, Abdou Ndiaye macha allah moom tamit di def liggéey bu am solo ak ki nga xam ne mooy Cheikhouna Kandji moom tamit di ko jàppale ci liggéey bi Cheikh Sambou ñu ngi koy jaajëfal bu baax Gora Seck diwaan bu Argentine ki bi nga xam ne ñoo nekk foofu ci kanam tuuti it dinañ ànd ak lenn jëwriñ jëwriñ joo xam ne moom tamit incha allah mi ngi nii moo ñu gàttandu dalal ñu muy sëriñ Abdou Lahad euh, Fall moom tamit moo ñu war a yóbbu ci kër kilifa yi ngir njaboot gi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk te mu dëkk ak ñoom gën leen a miin fenn fu ci nekk danañu yóbbu ñu taataan fa ay kàddu wan leen ko ci ay image ci ay son Touba Argentine TV asalaamaaleykum Seyda waaleykum salaam wa rahmatullah Arona ginnaaw bu ñu nuyoo mbokki internet yi Touba Argentine TV nuyu nañ leen ziar baax comme noonu nga ko waxee rek ak seen jàmm ci dëkk bu sell bi di euh, Daaru Diop ñu bëgg fee duggee ci liggéey bi alhamdulilah bisimilah rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabil alamin comme noonu nga ko waxee rek lépp lu fi ruuse rek incha allah leen ko jàllale ci mbokki internet yi euh, Touba Argentine TV Arona. Mhm. jërëjëf Seyda Asou Niass Bintou Asad kon ki nga xam ne moom moo ñu dalal xam nga gan nag nañ diwi bëy ki nga xam ne nag moo ñuy dalal ci dëkk bi sëñ Abdou Lahad Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki daa daaira sant sëriñ Massamba Diop Sam ñu ngi leen di nuyu ci kàddu daairatu sant sëriñ Massamba Diop Sam ci jiitul sëriñ Cheikh lay ñu ngi jànal suñu gan ñi nga xam ni kii suñu gan ñi nga xam ni kii nga xam ni mooy yor réalisé bi di aaroona mhm. ñu ngi leen dalal bu baax te di leen teewlu bu baax a baax te ñu fas yéene ànd ak yéen ci kon yaa ñu fas yéene yóbbu ci biir dëkk bi ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi laaj leen li nga xam ne moom moo di bis bi ak naka lañ koy dundalee waaw loolu ñoo ko fas yéene def incha allah mhm. waaye dinañu dem ci kër kilifa yëpp ànd ceeg jëwrin mhm. ndax ci ndigalam la ñuy doxe mhm. incha allah jërëjëf kon programme bi naka la fas yéene demee fii ci journée bi waaw ñu ngi koy ci dalale ci alquran ak xasida ak sikkar ak tudd yàlla ak salaatu ala lu waay man ñu ngi koy ànd ci jëwriñ ci sëriñ Abdou Diagne ak sëriñ Mamour lay ñoom ñoo yore wàllu alxuraan mi ñi ngay ànd ak guddi gi nag bu demee ba guddi gi sori sëriñ amadul Mara Seck moo koy jàng ndax la 17 heures nag maanaam ci la conférence bi nga xam ne moom la ñuy war a doxal cérémonie officielle bi mhm. moom lay am la 17 heures uh-huh. kon dëkk baa ngoog macha gis ngeen mbooloo mi oto yaa ngi nii gaare gis nga li nga xam ne moom moo di guy yi macha allah kon fii mooy dëkku Alaaji Gora sekk mi nga xam ne nii kenn ku nekk xam na taxawaayam ci Touba Argentine TV ànd koog Seyda Assou Bintul Asad Arona Cissé Abdoulahat Fall ki nga xam ne mooy Abdou njaay ak Seexuna Kanji ñu fas yéene doxantu rek dugg ci ñi nga xam ne ñoo di kër kilifa yi kon topp leen ma sama gaay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan ci uh, Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun saa su nekk mbokk yi nag niñ leen ko waxee woon tey xam nga ñi ngi ci dëkk sell bi di Daaru Jóob uh, di digga diggam ak Touba war a toll ci fanweeri kilomètre ak uh, juróom ndax diggam ak Daarul Moxti mel na ni juróom benn kilomètre moo dox ci diggante bi di dëkk boo xam ne it dëkk la boo xam ne macha allah kenn ku nekk xamoon na jàmbaar ja ma Massamba Diop Sam ni mu taxawoon ak Cheikhul Khadim liggéeyam ci yoon wi ñëpp ràññee nañu ko tey nag ñu ñëw fekk si fi ak njabootam ci bis bu am solo boo xam ne ñi ngi ko fi amal seetaan ngeen euh, li nga xam ne mooy jataay bi ñu fi amaloon keroog macha allah ak ñi nga xam ne ñooy njaboot gi ak lenn ci kilifay dëkk bi. ñu wax ñu taarixu dëkk bi ak li nga xam ne mooy cosaanal màggal gi bis boobu nag yegg si nañ ci tey suñu liggéey nag euh, ñi ngi ko dooree fi nga xam ne mooy kër Serigne Abdourahim Diop mi nga xam ne mooy xalifa Serigne ma Samba Diop Samb ñi ngi nii ki ngeen jàkkaar di ab taawam di Serigne Cheikhouna Diop euh, moom mu ngi nii toog ak euh, taalibe yi ak lenn ci kilifa yi rakkam tamit sëriñ Sam Diop di. doomi Serigne Abdourahim Diop incha allah moo war a yëkkati kàddu euh, télévision Touba Argentine TV déplacé wu ñëw fas yéene incha allah seq ak ñoom waxtaan euh, si présentation bi ci kàddu gi seen mbokkaaroon si si ngeen ci àndal euh, ak Seyda Soxna Astu Ñas ak sama caméraman yi macha allah Abdou Ndiaye ak Serigne Kànj maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax su ko defee kon. sëriñ bi euh, télévision Touba Argentine TV ñi ngi lay wax salaamu aleykum ci bis bu sol am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy amal tey ñu ñëw fekk si leen fii ci kër sëriñ Abdourahim Diop. di leen nuyu ci turu sëriñ Cheikhouna mi mu leen di nuyu ci turu sëriñ Abdourahim Diop di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér di nuyu itam bokki teel bi yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci jotaay bii yëpp. di nuyu itam na ak mboolem waa Touba Argentine TV ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci dalal ki nga xam ne dalal nañ ko ngir bëgg a yaatal liggéey bi kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di ñaane itam bis bi na dugg ci ci bisam laa yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina lu tuuti rek ci dëkk bu sell bi nga xam ne mooy Daaru Diop ci tënk rek ci taarix bi ak sababu li nga xam ne moom moo di bis bi rek nga dellu siwaatal waaw bis bi moom euh, li ndigal li li sabab bi rek mooy comme ni ma ko waxee woon rek mooy bis la boo xam ne ni ñoom dañ koo amee woon ndigal ci e, Cheikh Abdou Samad Diop mi nga xëy ni moo fi nekkan xalifa Cheikh Massamba Diop boobaa léegi comme ni ko jëwriñ ji waxee am na ay at ñu dajale woon ñëw ànd bëgg a liggéeyal sëñ Massamba Diop boobu itam ci leen tàgg woon sëñ Abdou Samad mu jox leen bis bii ni jox naa leen ku ngeen bu bu yegseetee ngeen ànd yéen ñëpp maase def ci bis boo xam ne dañ koy dara jàlle sëñ Massamba Diop def ko ak cant loolu itam mooy sababas bis bii yàlla dogal na itam dëkk bii itam dafa bokkoon ci dëkk Serigne Massamba Diop Samb yi nga xam ne dafa bokkoon ci dëkk boppam yi ndax euh, ni kenn ku ne euh, xam ne ni nga xëy ne noonu la doxe woon noonu la demee woon ak borom daru ba loolu mooy sababas mu ñëw te nekk fii ci ndigal Serigne Touba loolu daal xam naa moom mooy mooy lenn ci taarixi dëkk bi kon xam naa liñ ci profité rek di ko ci wax mooy nuy sant ci turu sëriñ bi di sant itam mboolem taalibe yi nga xamee ne ñoo taxawee liggéey bii. di foop cant gi di ko teg ci loxol Serigne Cheikh lay mu mu jottali ko mboolem taalib yi nga xam ne ànd na ko ñoom ci liggéey boobu kon nag li ngi leen di turu ci sant ci turu Serigne naa mu jottali leen cant gi ci turu Serigne Abdourahim Diop di ñaane tam bis bii ñu yàgg koo def ci yàgg cee daje ngërëmum ginnaaw loolu it nee ni mi ngi dénk taalib bi yëpp di dénk bokk yëpp yi dem nu maase ànd jaamu yàlla ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li nu fi indi ci bàyyi nu fi nee na mi ngi leen di dénk bu baax a baax na góorgóorlu ci diine ji góorgóorlu ci lislaam ji bu baax a baax ca rafetal seenu bokk ca uh, àq ji nga xam ne dox na seen diggante dëkkandoo yi nu moytu ko bu baax a baax ndax ak dafa nekk loo xam ne lu mën a gàllankoor nit ki ëllëg la ba tax na loolu mu ngi koy dénk bokki taalibe yëpp yëpp nu gaan a maase ànd ci jub nangoo liggéey ca liggéey rek mooy li nga xam ne moo leen jëriñ tey ji di ñu jëriñ ëllëg leen loolu mu ngi ciy sonni taalibe yi bu baax a baax di ci sonni bokk yi ñëpp wax na jërëjëf jërëjëf Serigne Sam Diop ci kàddu yu am solo yi nga xam ne jotal nga ko ci kanamu ki nga xam ne tey moo fi toog toogaayu Serigne Abdourahim Diop mii di Serigne naa Diop ci taawam wax dëgg yàlla macha allah kàddu yi rafet na lool ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm liggéey bi incha allah tey ñu ngi ko ànd ak ki nga xam ne mooy Abdou Fall di représentant ki nga xam ne mooy président organisateur daaira bi moom tamit incha allah moo ñu yóbbu ci kër kilifa yi fenn fu ci nekk rek incha allah. danañ fa jotal sunub liggéey wane la nga xam ne moom moo fi nekk kon ñi ngi ziar mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp ñoo teewee li nga xam ne moom moo di jataay bi euh, te télévision Touba Argentine TV kon incha allah ñi ngi lay sant bu baax a baax sëriñ bi tey sàkku bu baax ngeen gën noo doole ñaanal comme ñu ko waxee woon seen taalibe di seen doom di seen lépp alaaji góor yi ngeen gën koo ñaanal bu baax a baax kon ci kanam tuuti rek incha allah dinañ leen digaat daje ci geneen kër kilifa àndaat fa ak Seyda su ñas incha allah ci li nga xam ne moom moo di reportage yi ci bis bu am solo bii nga xam ne nii ñu ngi koy amal fii ci Daaru Diop. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa Argentine TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Cheikh Seck ca di leen siyaare baax kenn ku ci nekk sa tur ak sant. di am mbégte lool ci bis bi nga xam ni mooy daa màggal Daaru Diop nga xam ni. ñun na lu dul moom bis yi bari na lool waaye fi nga xam ni fi nga juddoo fi nga yaroo fi la la fi nga fekk baax fi la la baax fekk bis boobu accès dañu am mbégte ak kontaante bu baax a baax leen na jëmi bis bi bu ñëwee dañ ciy am mbégte lool ndax sa xarit yi nga gëjoon a gis ñi nga juddoondool ñi nga yaroondool ñëpp ngay teew gis leen loolu mbégte la kon ñoo ngi ñaan ci barki sëñ Tuubaa ñu yàgg ko teewe at yu baree bari barki Cheikhul Khadim yéen ñi nga xam ne tamit yéen a jógee Touba ànd ak uh, waa Argentine TV muy sëñ Aaroona ak ñi nga àndal ñëpp ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di siyaare itam sunu mag sëñ Gora Seck di ko ñaanal fam ne yàlla defal ko fa yaatu ba mu ñibbisiwaat ci jàmm ci njaboot gi barke Seexul Xadim di siyaare bu baax sëñ Cheikh Diop mi nga xam ne mooy boroom kër gi ak sunu jarbaat Baye saalewu Diop ak sunu yaay ji nga xam ne amoon na lu dul moom di ko ñaanal yàlla. guddal fanam lool wéral cëram ba li ñu yéene ci ñun ba li mu yéene ci ñun suñu borom matali ko ñun itam li ñu yéene ci moom lépp suñu borom may nu ñu matale ko waa ndax wax dëgg fa yàlla day amuñu lu dul moom kon daal yan ñoo ngi ñaan ci barke Seexul Xadim rek li ñu yéene ci moom yàlla may nu kattan guñ ko defee ñoo ngi sant bu baax a baax képp koo xam ne daal juddoo nga Daaru Jóob yow Daaru Jóob ñoo ngi am mbégte bu wér a wér a wér ci bis bii nga xam ni comme ni ma ko waxee woon rek saa bu jub see rek ñun dañu ciy am mbégte loolu ba Sëñ Tuubaa di ñaan daal yàlla na yàlla defal xeewal yu yaatu lool ñu yàgg koo teewee bu baax a baax ñoo ngi leen di sant bu baax a baax sañ aaroon ak ñi ngeen àndal ñëpp te set yi nag bi ñu ñëwee bi ñëwee lan gis maam góor jóob di ko jaay at yi yëpp yàlla dafa def dañ koy def waaw ndax maanaam par exemple liñ ci am dana tax mu mën a dugg ci social dëkk bi lu demee ni poste santé bi ñu fiy def ak euh, lu jëme ci wàllu mbaar mi ak yeneen ak yeneen lii chaque waaw chaque année daal mille cinq cent yi nga xam ni donc waaw mille cinq cent yi nga xam ne ni boo boo ko ci defee par exemple buñ ci feree huit cent sept cent francs yi ciy des buñ ci jaayee cent dix-sept wala deux cent dix-sept fu mu lu ci génn rek dañ koy defaat ci biir dëkk bi kon seen boo xam ne ci juddoo nga Daara Diop yaroo fi rek bu bis bi accès bu buñ la nee ñëwal jënd ci bul ci existé sax xamal ni boo ci jëndee rek yaa ngi suqali dëkk bi te ñun ñi fi juddoo yaroo fi rek nag ñoo mën a suqali dëkk boo fi dem fa mu àgg ña fa juddoo yaroo fa rek ñoo ko àggale foofu ñun daal ñu ngi am mbégte bu baax ak kontante ci bés bi di ñaan yàlla suñu borom may nu ñu teewe ko at yu ba bëri barki Cheikhul Khadim. jëf jaajëfati Serigne Cheikh Seck kàddu yi am na solo am na solo lool waaye ba tey ñu feggoo ko suñu yaay suñu xarit la sonn su baax la su tedd la ñu ko fekk ci kër gi mu bokk ci ñiy dundal bis bi mu mel ni ki ne waajur la ci suñu xarit euh, Serigne Gora Seck kon yaay ñu dékk la la noo dunde bis bi ak sa jàngat ci bi di nuyu di sant di leen laaj seen jaam seen jaam maa ngi ñaan ci bis bi barke yàlla ak yontu yàlla manu yàlla noonu defal nu fekk ko ay ati ati ati ati at ci barke borom bis bi nag ni ma ko gisee li ma ci war a wax lépp mënuma koo wax ndax li tax mënuma koo wax bis bi damaa neex neex koo xam ne nii xam naa fa mu waaye xaw fu mu yem maa ngi ñaan ci barke yàlla ay yontu yàlla ma du képp ku fi taxaw de bu nëgën déwén ne yàlla na nga fi taxaw te nga ànd ak la nga war a àndal ci barke borom Touba kuy góor maa ngi lay sant ku jigéen maa ngi lay sant góor seek nag maa ngi ñaan ci barke yàlla ay yontu yàlla ma du yàlla na ñibbi see jàmm moom ñam fa fekk ak ña fa fekk ci barke sëñ Fallou sëñ Alla Diop rek maa ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan gu ànd ak wér ak wér la may may ko ñëpp. maa ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a sell. di leen ñaanal nag ci bis bi ci bis ci barke Sëriñ Massamba Diop bis bi moom moom moom ku lu ko ku waay lu ci waay yëngu rek bu déwénee da nga man lu lu ko lu ko raw waaw ndax Sëriñ sàmba Diop moom ku ne xam na ko moom ku lu ci waay def rek bu beneenee soo fekkee nga du muy dëgg ci yow beneenee da nga man lu ko lu ko raw Euh, kàddu yi am na solo mbokk yi ne a ko déggandoo waaye ba teyit euh, ñu di leen jaajëfal yéen i mbokk yi internet yi Touba Argentine TV ñu leen jox dig daje ci geneen kër incha allah ci seen reportage bi. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ba tey ci euh, site internet bi di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyuwaat. di leen nuyoowaat ba tey ci geneen buntu kër ci njabootuk ki nga xam ne mooy Serigne Massamba Diop Sam ba tey fii ci dëkk bu sell bi di Daaru Diop ci bis bu am solo boo xam ne eh, njaboot gi ñu ngi ko fi amal tey wax dëgg yàlla macha allah ci kanam tuuti cérémonie officielle bi dina am di ngeen ànd ak eh, moom programme bi incha allah dara du leen ci rëcci eh, tey nag ñi ngi fii ci kër Serigne Alxaaji Diop xalifa Serigne Mbacke jaara moom macha allah moom ngeen jàkkaar loolu nii moom tamit incha allah ñu fa yéene seq ak moom waxtaan tuuti rek ci bis bu sell bi nga xam ne ci la ñu nekk. ni ma ko waxee woon nag maa ngi ànd ak euh, soxna Seyda Astou Niass moom tamit nekk ci euh, suñu wet wax dëgg yàlla di ànd ak ñun liggéey bi macha allah ñu ànd ak ki nga xam ne it suñu cameraman Abdou Ndiaye ak Cheikhouna Kandji waaye it ànd ak ki nga xam ne mooy euh, Abdou Diop moom tamit di représentant ki nga xam ne mooy président organisateur bi kon sëñ bi télévision Argentine TV ak ñi nga xam ne ñooy daar Mouhty FM ñu ngi wax salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. yéen mbokki taalibe yi yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant di leen gërëm seen taxawaay gone yi sant nañ leen baax a baax ci taxawaay bi ndax bu ma kee ba tey kenn noppalut saa su ne ñu ngi ci lu jagal bis bi ak lu ak lu doxal bis bi sant nañ leen baax a baax ñoo ngi ñaan ni ñu ko tàmbalee rek saa borom may nu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin saa borom gën a dolli xéewal yi gën a dolli wér gi baax a baax lu ci waay yéene ci yoonu suñu sàmm rek lu ci waay def rek bu déwénee nga def lu ko gën a mën lu ko lu ko ëpp fop ci rajo leen baax baax jërëjëf doxal si lay sama bakkat bi barkeelu tuuti rek ci jàmbaar ji sëriñ hmm. Massamba Diop Sam kenn ku nekk xamoon na diggam ak sëriñ Touba Cheikh Amadou Khadim ah loolu moom sëñ ne xam na digg ak sëñ Massamba hmm. ak diggam ak sëñ Touba hmm. moom ko diggam ne xam na ko moom taalibe bi kenn jëkku ci taalibe bu dee taalibe rek moom sëñ Massamba kenn jëkku ci sëñ Touba ndax moom la ko fa yóbbu woon moom jàng la fa jógee woon waaye ba mu demee. Hmm. da ko saw dooñ. Hmm. ak saaw dooñ maa boole. di koy daal dooñ mooy. waaw aw sas aw sas hmm. sa daara ja mu ni ko. gaa yi ne ko kon rey bu kii day bu bu buñ la jëkkee dis naa ñu wàcce la de. nee Sëñ Tuubaa ne ko. bu boobaa. nee bu ñu añee wàcce la bu ñu fa ñuy séddalee añ. maa la fay tibbal ba nga doyal. waaw. naa ko maa fay tibbal ba nga doyal. Uh-huh. léegi nag. noonee ca lañ ko wéyee woon te lañ ko wéyee ba ba ba jéblu xew mm-hmm. bu jéblu xew kenn jëkk ko jéblu mm-hmm. ñoom ñëpp jàngaleen fa yóbbu woon mm-hmm. ndax moom mm, fi fi fi ñax saam ci deeru saam foofu la ko gisee woon ci man ak baayam bi mu tëralloo sëñ saam di ko tëralal sëñ bi bi gis ko ne ko ma xool si bind mhm. mu sëñ sëñ ma sàmba jox ko bind bi sëñ tubaa xool ko ne ko ma tëralal la moom ko tëralee la ko sëñ tubaa ga mhm. mel ne koo gën a dugg lée ko lée ko sëñ sàmm daa tëralal mhm. bañ fa jógee ne mu dem daru sa mu dem mu dem nekkaj ca baayam ne ko man day gis naa sëñ boo xam fee moom laa bëgg a daan seeti ko ba xam daal mais comme yow li nga yor xanaa moos li nga jàng bu dee jàng rek li nga jàng xanaa mën nga kii di mhm. mu ne ma daal naa ne ànd ak rek mhm. bu ma demee daal lu nekk rek ma ne ci ak moom am di koy wax ko suñu suñ tubaa suñ tubaa ne ko mhm. man de ab surga rek laa ab surga nag mënu ta ab surga mun ko mën nag loo nekk rek doy na ma mën naa caa nekk waaw mu ne ko nag léegi ñu ne ko ñu ne léegi nag ku fi ku fi fanaan de bu suwaa nga dem tool ku fanaane bu suwaa di nga dem tool ñëpp la ñuy dooñal te ñu ne ko loolu ñuy wax nag maa tax ñuy wax mu ne ko nag saw ak saw sas maa koy boole bay ko soobee yàlla di ko bay di leen jëkk ñoom ñëpp ba ba ba ba nii loolee nag moom ba fii ne moom moo moo fi ne rek daal sëñ Tuubaa rek mu ngi ci ginnaawam waaw jërëjëf doxal sëñ Lamin jërëjëf sëñ Alxaaji Diop di xalifab sëriñ uh, Mbàkke Jaara macha allah ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko kon sëñ lamin sëriñ bi jox leen di gën ngir ñu war laa jox kàddu gi asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa rahmatullahi eh, ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm te xam ni sëñ Mbacke Diarra moom daa amoon cër bu rëy ci kër sëñ Touba kër sëñ Massamba Diop gi dafay amoon cër ndax lépp loo xamante ni si sëñ ma Diop Massamba magam ja daana ko liggéey ci ab loxoom la ko jaarale woon waaw kooku nag kon xam ngeen ni am na ci cër bu mag. man nag saay wax du ci bari lu dul rek xam ne li sëñ bi wax ma ne su cee teg leneen ndax sëñ Massamba Diop ñu bari xamuñu ne sax cër bi mu am ci sëñ Touba ak njëkk gi mu ci njëkk sëñ Touba ñu bari ump na leen waaye noonu ko sëñ bi waxee ni la demee. kon nag li ma ciy teg mooy maa ngi ñaanal sëñ Alaaji yàlla yàggal ko fi te wéral ko te li muy liggéeyal sëñ mbakk jaaraat mu yokk ko do man bu baax yéen it noo leen di ñaanal fépp fu ngeen bëgg àgg ci seen lii ngeen di def mm. yàlla jàppandal leen leen ko mm, ba fu ngeen ko séentoo rek ngeen dem ba am fu ëpp seen njortu ak seen mébét mm, ci barki Cheikh Massamba Diop ba Xaadimu Rasuul aleykum salaam jërëjëf macha allah jërëjëf Serigne Lamine Diop ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne yëkk yëkkati nga ko kon mbokk yi xam naa du ñu def di leen sant te Serigne baa ngi koy leeral rakk la ci moom macha allah kon su ko defee rek bëggoon nañ mu gën a yaatu waaye xam nga wolof day wax ne li duuf ci nag yi lépp xajandowul ci cin li euh, joomul am na yeneen i buntu kër yoo xam ne incha allah warees na faa dem ci kanam tuuti cérémonie officielle bi war naa ñëw kon Pape Alsane Mbow Daaru Mouhty FM ñu ngi lay sant bu baax te ziar waa daaru gi yëpp Euh, di leen ñaanal jàmm su ko defee kon incha allahu taala dañuy daal di rek euh, incha allah di leen sant yéen ñi nga xam ne aussi yéen ñi seetaan ci kanam tuuti nañu ànd ak mbokki soxna yi ak suñu jigéen Seyda Suñas incha allah bintul azat ngir mu gën a yaatal li nga xam ne moom di liggéey bi ci mbokki soxna yi ndax ñoom tamit ci bis bi la ñu bokk kon ñu ngi woon fii nga xam ne mooy kër Serigne Alxaaji Diop xalifab Serigne Mbacke jaara di jaare mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew macha allah tey rek ni nga xam ne noonu la ñu amalee reportage yi ci mbooleem njabootuk sëriñ ma Massamba Diop saam gi la macha allah bi ñu jógee kër sëriñ Alxaaji jóob ñu ngi fii nga xam ne mooy kër sëriñ Abdou Lahad xalifa xalifab sëriñ Thierno Diop. kër sëriñ Thierno Diop ci biir loolu it xam ngeen ne sëñ bii toog ci kaw ngeen jàkkaar lool mooy sëriñ Bassirou Diop xalifa sëriñ Modou Diop Massamba moom lañu ñu jàkkaar lool nii. waaye nag euh, mu jël kàddu gi jox ko ki nga xam ne mooy Serigne Abdou Lahad Diop incha allah moom moo war a yëkkati kàddu ci turu Serigne bi su ko defee kon Serigne Abdou Lahad euh, télévision site internet bii di Touba Argentine TV ñu ngi lay wax salaam. naaw nuyoo bi maa ngi jégalu bu baax a baax ci kanam kilifa gu tedd gi ma toog euh, di wax ndax mooy sunu kilifa di sunu waajur di sunu lépp. ñu am ndigal nag ci sànni ci ay kàddu xañ na ndigal loolu danañu dimbali ba mottali nu ban mën a wax li ñu bëgg a wax walla li ñu li ñuy jéem a wax mooy bis bii tey di bisub sëñ ma Massamba Diop Sam di bisub sëñ Modou Massamba Diop Sam fii ci Daaru Diop ngeen dikk fi li waral bis bi moom dafa bari te yaatu ndax ay bokk yu dajaloo lan yu bëgg seenu bokk xamante ba yaatu ak alxuraan ak sunna ngir dund ci loolu moo waral bis bi ñu tudde ko sant sëriñ ma Massamba Diop Sam waaye sant yàlla sant yonent bi sant sëriñ Touba ndax moo waral lépp tey jii dëkk bii nag day dëkk boo xamante ni si ndigal a ko sos ñii fi nekk itam ci ndigal la ñuy dund mag ñu baax ñi fi jiitu woon ci xalifa yi jërut ma koy lim ñépp kenn ku nekk na sa morom doon doxe ngay dox ba kera ñu agsi fii ñu agsi di bis boo xamante ni si gone yi ko sos ànd ko mag ñu baax ñi nekk ci dëgg ak bëgg lu baax moo tax tey sang bu tedd bii ñëw fekk si leen ndax bu fi bu leen déggoon ci leneen wala muy deme neneen mën naa am këram lay toog kon nag ñëw gim fi ñëw ren ji te yàgg fee ñëw ndax bu mësul ñëw ci jëmmi tamit dana yónnee ci mm, rakkam ju sës ci moom wala doomam ju sës ci moom wala mbokk yi taalibe yi kum ci ñëw rek dafay mel ni jëmmam la daan wootee jëmm jooju mu teew ci bis bi bis bi nag li ko waral mooy eh, sant sëriñ Touba sant sëñ ma sàmba job Sam eh, ginnaaw buñ sante yàlla eh, ndax ab dëkk la boo xamante ni si noonu ma ko waxee rek cosaan li dafa yaatu te yàgg lool sang bu tedd bi fi nekkoon nag ñu xam ko fi muy suñ sëriñ Modou Massamba Diop Sam ku ne fekk na ko fi waliyu yàlla wu ne fekk na ko fi bari naat ci njabootuk sëñ ma Massamba Diop goo xamante ni si tey jii fii leen lépp fii leen leen léppale tey jii ban jóge fi di nekkee faneen laneen kon dëkk la boo xam si dëkk bu mat a bàyyi xel la bu doon ni eh, ci wàllu formation ci militaire dama naan fii Dakar Bangu la waaw ba ndax bari na ci njabootu sëñ Massamba Diop goo xamante ni si fii la leen sëñ Moudou Massamba Diop téye woon yor leen fi di def ci ñoom li war lépp ban jóge fi eh, doog Euh, defi leneen kon dëkk la bu mat a bàyyi xel kilifa yu baax yi yu yàgg yi nga xamante ni si sëñ lu ñoom sëñ Modou Moussa ku nekk fekk na fii sëñ Modou Massamba Diop Samb mu doonoon koo xam ne ku bëggoon dëkk bi la te fonkoon fonk jàkk ji lool fonk waxtu yi lool daan dundal lool li Serigne daan santaane fii ci dëkk bi taalibe yëpp xam nañ ko bu tedd bii xam na ci lu bari lu baree baree bari bari na sax ñoo xam si ci eh, njabootu sëñ Massamba Diop am na ñu ganee àdduna fii ci dëkk bi kon dëkk la bu mat a bàyyi xel waaw li waral bis bi daal mooy bis la bisub jaamu yàlla la bisub sant sëñ tubaala la bisub gën a fedd li la mag ñu baax ñi daan daan def la lu ci dëng nag sunu matadi la waaye sëriñ bi moom li mu yéenee wax mooy xam ni daal lu baax ñu moo moonu dajale fii te moom la ñuy xeeñcu te moom la ñuy wut ngir am barke mag ñu baax ña asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad Diop ci kàddu yu am solo yi nga xam ne nii yëkkati nga ko. macha allah rafet na lool kon liñ ciy déggee daal mooy bisu ko màgg ya ca war màggal ko baril ci ay ñaan rafetal sellal ko te it xam nañ ne wax dëgg yàlla yu yëpp macha allah am na fi tabaarakallahu kon ñu ngi leen di sant di ñaan suñu borom ngeen ñaanal nu it ñu yokk bu baax. nga ngeen ne borom kër gi dafay koo xam ne ci dëkk bi la cosaanoo ba noppi ma Massamba Diop Sam di léppam moo tax it bi mu accès mu déplacé équipe bu am solo ngir ñu ñëw fësal liggéey bi nga xam ne nii moom moo fi am ànd ko ak ñi nga xam ne ñooy waa daa daaira bi ñu boole noog jëwriñ joo xam ne mooy Serigne Abdou Lahad Fall moom tamit incha allah ci wàllum réalisation bi. ci présentation bi comme ni ma ko waxee woon euh, si kàddu gi seen mbokkaaru na Cissé feggoo ak euh, soxna Assou Niass. ñu koo xam ci Sayda Suñas Bintul Azat euh, ci caméra bi ki nga xam ne mooy Abdou Ndiaye ak ki nga xam ne mooy Seexuna Mbaj Seexuna Mbodj euh, Kanji moom la ñu ñoom la ñu àndal ci wàllum réalisation bi ñu ñuy jàppale ci liggéey bi ndax xam ngeen ne bu ngeen ñi mën a seetaan ba am ay image yu jaar yoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum caméra bi ñoom it ñu ngi ciy bay waar wu am solo kon ñoom tamit ñu ngi leen di beral cant ak ngërëm kon su ko defee rek sëriñ bi ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal bu baax ñu yàgg leen fee fekk tey sàkk ngeen ñaanal na bu baax sant nañ ci kàddu yi bu baax te di leen ci gërëm bu baax kon su ko defee kon incha allah niñ leen ko waxee woon ci kanam tuuti rek dinañ demaat ci geneen kër kilifa ci njabootu Serigne sàmm Diop Sam cérémonie officielle bi it ginnaaw tàkkusaan incha allah ci kanam tuuti lay doon lépp loo xam ne rek am na fi danañ ci ànd ak yéen ci ay image ci ay son yëpp incha allahu taala Touba Argentine TV fii ci Daaru Diop jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi ba rek ñu leen ko waxee woon ñu ngi euh, amal li nga xam ne moo di reportage yi ci bii kër euh, njabootuk sëriñ bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bii di Daaru Diop ci bis bi nga xam ne ñu ngi koy amal ni ki tey jii kon xam naa rek incha allah ñu ngi fi nga xam ne mooy kër sëriñ Baara Diop xalifa Baye Sëriñ Diop incha allah moom ngeen jàkkaarloo nii euh, ñu ñëw fas yéene taataan ci moom ay kàddu kon sëriñ bi xam naa du ñu guddal rek rajo télévision Touba Argentine TV ñu ngi lay wax salaamaaleykum. maa ngi ñaan ci sëñ Touba. yàlla dool ni lu jàmm. yàlla naatal réew mi. nu bañ a soxlal kenn ci dara ci sëñ Touba. yàlla mën na ko. yàlla na ko yàlla def. maa ngi ñaan ci sëñ Touba. màggal gii na fi ne abadan. Ah, daay man ba kere nii faatu. luñ ci man daanañ ko ci def mhm. waaw barki sëñ Tuubaa barki Cheikh Mamadou Massamba Diop mhm. barki Baye Serigne baax na euh, sëriñ bi ci kàddu yi am solo yooyu xam naa ñaan ngeen incha allah nañu gën a ñaanalal bu baax euh, ci suñu liggéey bi suñu borom gën ñu cee defal bàyyee lu baax te boo fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon nee na ñu yàq ko waaye nag soo demee ba fi lu baax ba fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon ñu yokk ko sëñ Massamba dem na ba fi ñu baax ba fi lu baax lu baax loolu gis nañ ni yéen a ngi koy suuxat bu baax macha allah yéen a ngi sof daal ci liggéey bi te safaanewu leen sof bi waaw <laughs> tabarkalla sant nañ bu baax a baax di sant mooy lii rek waaw ñii fi daje dundal dëkk bi rek la waaw yàlla yàlla na sax. mu mel ni sax dëkk bi am am na ko ma doon signalé léegi wane ne Serigne Saliou mosoon na fee yónnee sax ngir ñu tibbal ko ci suuf si nga xam ne mooy suufu dëkk bu sel bi waaw ngir ngir kéemtaan yoo xam ne. moo waaw nekk incha allah. dañ lay jox ay seere rek ci kàddu googu nga wax ci mbirum Serigne Saliou lii may wax nag maa ngi koy wax ci ndigalul Serigne Bara Diop mii moo ci joxe ndigal waaye nag ñoo ngi jégalu yi ci wetam. ndax daal. maanaam dëkk bi daa doon dëkk boo xamante ni kilifa yi nga xamante ni ñooy njabootu Sëñ Tuubaa gi kenn ku ci nekk am na foo tegoon ndax Daaru Jóob gi demoon nañ fi ba nga xamante ni yàlla dogal na amoon nañ jafe ndox jafe ndox boobee bi nga xamante ni yàlla dogal na dugg nañ ci nopp Sëñ Saaliwu ki nga xamante ni moom la ko doon defarloo pour ndox mi ñëw da ko wax ni ko Daaru Jóob googee ak manqué ndoxam moog sama wanag wii manqué ndox laa yemale kon nag loolu lu rëy la ndax sëñ Saaliw moo ko wax hmm. ci làmmiñu boppam kon nag loolu laa lay indil ay seere ci li nga wax ci diggante sëñ Saaliw ak dëkk bi teew bi mu jëlee Daaru Musi ba indi ko fii hmm. moo indi électricité kii plombier bi ko fi indi hmm. jox ko ay tuyau mu monté ba desal ni ko Daaru Jóob googee nga nga ñu ni daa manqué ndox mook sama wanag wii manqué ndox laa yemale lu mu gën a gaaw rek moo ci gën waaw kon nag ñu ngi jéggalu kàddu yu baax a baax jërë ngeen jëf yàlla leen yàlla defal mucc gànd ak tawfeex barke Cheikh Massamba Diop jërëjëf kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant équipe bi nga xam ne moom ñu àndal ci présentation bi ci kàddu gi seen mbokk Arouna Cissé Seyda Sounias Bintul Asad euh, ki nga xam ne mooy Abdou Ndiaye ci wàllum caméra bi ak euh, Cheikhouna Kandji ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen dig daje tuuti xam naa incha allah ci cérémonie officielle bi ak tamit leen suñ mbokk jigéen ñi danañ fa amal reportage ak Seydou Niass jombul ci kanam tuuti incha allah wéy leen di ànd ak télévision Touba Argentine TV euh, di leen jëfal bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ba tey rek euh, ñi ngi wéyal liggéey bi fii ci Daaru Saam actuellement nag jamono ji euh, dafa jël kàddu gi jébal ko ki nga xam ne mooy Serigne Modou Makhtar Diop. moom moo war a yëkkati kàddu ci turu Serigne Bara Diop fii ci ko Serigne Abdou Samad Diop. mbokki taalibe yi rawatina kilifa dëkk bi xalifa Serigne Abdourahim Diop te xalifa Serigne Massamba Diop Sam di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem sëriñ ma Massamba Diop Sam gépp ba li nga xam si ne am na yéene liggéeyal ko seen waajur bu baax wa ak seen maam ju baax ja. yàlla kàttanal leen te may leen lu wér ba nu mën koo àggale eh, ak eh, xalifa bi nga xam si ne moom lañ di àddoo fii ci këram di sëriñ Moustapha Diop eh, yàlla yàggal ko fi muy xalifa sëriñ Abdou Samad yàlla yàggal ko fi lool te wér ak mboolem njaboot gi ak kilifa gi nga xam si ne moo nekk ci suñ ginnaaw muy sëriñ Baara Diop di xalifa sëriñ Mourtala Diop moom itam ak mbooleem ay rakkam ak taalibe yëpp ñoo ngi leen di siyaar baax di leen ñaanal Euh, tey nag ñu daje fi daje boo nga xam si ne euh, danoo àndandoo ngir euh, feddali liggéeyu mag ñu baax ñi nga xam si ne danoo laxasoo laxasaay woon jébbal lépp seen jébbal seen bopp seexul xaddim kenn ci kooku di sëriñ Massamba Diop Samb bi nga xam si ne moo sañ ci dëkk bii di Daaru Diop tey nag njaboot gi àndandoo woon ngir sant ko eh, ci liggéey bi nga xam si ne liggéey na ko liggéey bu rëy bi nga xam si ne ba mu am ndam lu rëy li nga xam si ni moom la ñu indil eh, njaboot gi àndandoo ak taalibe yëpp di ko defal bis fii nga xam si ni moo di Daaru Jóob bi yenn ci ay dëkkam Euh, kon loolu mooy solo bis bi nga xam si ne moo nu fi dajale euh, kon ci ndigalul Serigne Abdourahim Diop lan defee euh, bis bi tey nga xam si ne moo fi nekkal xalifa moo fi nekkal Serigne Massamba Diop Samb liggéey bi nag yàgg nañ koo tàmbali ci ay magam yu baax ya ku ci mel ne Serigne Abdou Samad ak Serigne Abdoul Wahab ba mu agsi ci moom. ak mbooleem njaboot gi ci seen ndigal lan koy defee bis bi nag weesuwut sant sant lan koy lan lan lan ci ci lan tàmbalee ak jàng alxuraan jàng xasaayit ak bernde loolu moo di eh, ndajem yoonu murit waaw ñëpp xam nañu ci loolu eh, ñu jóg ngir nga xam si ne eh, fa sun maam ju baax ja nekkoon foofu rek lan fas yéene teg sun tànk ba nga xam si ne Serigne Massamba Diop Sam ku ko xamuti dégg nga ko ci kër Serigne Touba nga xam si ne moom jëfam jëpp nangu liggéey ak jaamu yàlla la fi nekkee woon ba nga xam si ne kenn mësu koo yeb ci kër Serigne bi loolu mooy li nga xam si ni moo di suñu yitte yi nga xam si ni ñun njaboot gi ak taalibe yi ci loolu rek ci lan nekk euh, sëriñ Massamba Diop Sam nag doonoon koo nga xam si ne ala kulli halin ci kër sëñ bi moom kenn mësu ko cee yàpp ci hàddiya euh, ak ci xam ba nga xam si ne ci la ko sëñ bi euh, wàcc ci la ko sëñ bi wàccee jébbal ko jébbal ko boroomam ci ci Daaru Saam nga xam si ne fa la nekk tëdd nga xam si Daaru Saam ak fii soreewul nga xam si ne eh, ku ku ku ku ku làqu ngërëmul sëriñ bi la ku làqu ngërëmul sëriñ bi la loolu nag ak njabootam ci lan nekk kenn mosuleen a xam ci dara ci naka sudul noonu kenn mosuleen a dégg ci dara tamit ci naka sudul noonu ci yoonu siraatal mustaqima ci lan nekk kenn mosuleen a man ci sëriñ bi ci loolu ci lan nekk ñuy ñaanal eh, xalifa bi sunu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal njaboot gi lépp euh, yàlla kàttanal ko ñoo ngi jégalu bu baax a baax nag ci kàddu yi ñu ngi sant bu baax suñu kilifa yu baax yi nga xam ñoo fi nekk di leen dogal ngantu ci yëkkati yi nga xam si ne moonu yë yëkkati nañ kàddu yi te it xam ni mbetteel la ñu ngi koy jégalu di ko tuub bu baax a Modou maxtaar Diop ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko ci kanamu ki nga xam ne mooy Serigne Bara Diop fii ci kër Serigne Abdou Samad Diop xalifaam di Serigne Moustapha Diop ak mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp teewee nañu li nga xam moo di jataay bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, kon su ko defee incha allah ni leen ko waxee woon ci kanam tuuti rek dinañ àndaat ak yéen euh, ci liggéey bi fësal li nga xam ne mooy bis bu am solo bi nga xam ne mi ngi am ci dëkk bu sell bi nga xam ne moo di Daaru Diop Arona Cissé Seyda Sounias Bintul Azat euh, ki nga xam ne mooy Abdou seexu naa Kanji ak Abdou Lahat Fall moom tamit di jëwriñ ñi nga xam ne Euh, di ñu jàppandalal liggéey bi di ñu yóbbu ci kër sëriñ si moom tamit ñu ngi koy sant bu baax di leen gërëm équipe Touba Argentine TV fii ci Daaru Diop ba ci kanam incha allah jërë ngeen jëf. jàngeen jëf mbokku internet yi Touba Argentine TV waaye tey jii nag ba tey ñu ngi ci kër euh, jëwriñu daayira bi Serigne euh, Cheikh yi ñu ñëw fii fekk fi suñu mbokk yu baax yu tedd mbokki soxna yi ñu nekk ci waañ yi amal fi liggéey bu am solo ba tax nañu ñu suñu mag ndax mag yi jëwriñ ji la ñu fas yéene koo laaj ñoom naka lañ dundale bis bi ci biir waañu ndax kenn ku ne xam na ne euh, luy xeetoog màggal lu ci aju rek waañ ba da tey daal di am solo loolu yaay booy ñu bëgg nga wax ñu naka ngeen dundale bis bi ci biir waañ bi waaw loolu moom si laajee naa ci sawar ñoo ngi ci waañ wi sant yàlla lu ci yónnante bi mhm. sant suñu waajur sant borom bisbi sañ ma Samba Diouf Sam yàlla nañ ko yàgg a teewe ñun rafetu fekkin yàgg ko fekke ñoo ngi sant yàlla nag bu baax ñu ngi ci bis bi moom defal nañ ceeb bi ba mu baax mhm. sant na lool mhm. ndax waa dëkk bi moom amuñu seen pay xanaa yàlla moom seen pay ndax Cheikh lay moom xamul dara mënul dara waaye teewul ñëpp fonk nañ ko jox ko cër bi muy cër bu rëy ci biir Darou Diop dëkk bi ni mu toll cër bi ñu ko ko xam nga seet na suñu xol seet na suñu xol man mi magam nag seet na sama xol trop. Mhm. ban ban sant yàlla ba pare defal xale yi jigéen yaa ngi sama jeeg ji. ak sama gore yi. ñëpp defal nañ ceeb ba mu baax ceeb bi macha allah moom. Mhm. togg nañ ko ba mu aw yoon. Mhm. lépp moom macha allah tubaarikàlla. defal nañ ba mu baax. waaw ñaan yàlla nag su ñu si déwénee rek. ñu defaraat ba mu baaxee rek. incha allah incha allah ba sëñ ma Samba Diop Samb. jaajëf yéen su na ko fi ci mhm. reer bi ban plat la reer bi. moom plat ñaari plat la. Mhm. danañ def bu salade bi. Mhm. danañ def bu macaron bi rek defar ba mu baax. kon daal tànn sa bu la neex la tànn sa bu la neex rek. kon aaroon na aaroon na la la neex gañe jaajëfati kon Arouna Cissé ak mbokkam yi am fi ne ni moom seen xol sedd na yaakaar naa ñi sant Cissé euh, mbay loolu rek la ñuy wër ah, jaa ngeen jëf lii lañ leen indiloon euh, mbokk yi internet yi Argentine TV fii ci kër euh, jëwrinu daayira bi ñu jox leen dig daje ci kanam incha allah ca cérémonie ba wala geneen kër gu mel ni moom